waaw euh, ñu ngi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay donc euh, tey suñu teewaay fii maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré bokk ci mouvement Sénégal notre priorité suñu teewaay fii mooy ñëw gunge ci këru dëgg ki nga xamante ni ñun grand frère lañ ko jàppee koo xamante ni ñoo bokk ndey ak baay ndax amoon nañ ay relation yu particulière yoo xamante ne jotoon nañ ko sekk donc euh, am tiis nag bu dal ci suñu kaw ñuy masaw Sénégal yëpp di masaw tous les patriotes di Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité di masaw euh, ay famem di masaw soxnaam si nga xamante ne bu mu ko jëlee léegi su matee fukki fan ca lay yem kon gis ngeen choc bi nous sommes toujours euh, kàddu yi sax parfois daf ñuy xaw a diis ñu yëkkati ko waaye ñu gisee mbooloo bi fi teew pour gunge ko ci kërub dëggam dañuy am yaakaar ci moom donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla yërëm ko jéggal ko xaaree ko aljana di masaw comme ni nga koy waxee rek di leen masaw yéen ñëpp ah ñun sénégalais yëpp ñu ngi leen di masaw ci mbir mi donc di ñaan tamit taxaw ci famem taxawu ci soxna su mu fi bàyyi taxawu ci ay wéyjuram taxawu ci ay mag ak ay rakkam yi nga xamante ne bàyyi na leen fi donc am nañu yaakaar ci moom di ñaan aussi également yàlla bu ko cat jiitu ci fu mu jëm euh, di ko ñaanal rek di ñaan aussi ñi nga xamante ne ñu ñuy suivre ñu ñaanal leen parce que nit moom su génnee àdduna ñaan lay gën a soxla donc ñu ngi ñaan ci képp ku ko mën soo jullee ba noppi nga def faatiya ak fukki lixlaas ak benn ñaanal ko moom ñaanal yereen ñaari garde yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan waaye aussi également ñaanal mbooleem julit bu nga xamante ne génn na àdduna muy suñu mbokk muy mbokki ñeneen ak ñeneen te comme te euh, kullu muslim ak kullu muslim jullit julitee mbokkam donc nañu ñaanal suñu mbokku julit yëpp yàlla yërëm leen jëggal leen xaare leen ajana lii metti na mais dañu koy teg ci loxo yàlla parce que kullu nafsin saa yi xatil mawti bakkan bu na ñam dundu di nga ñam dee donc dee tamit dafa euh, dee bu bette la moo tax mu choqué franchement metti trop waaye ñu ngi massawu ñëpp waaw di masawu ñëpp lii moo nekkoon kàddu yu ñu fi bëggoon a jibal di masawu ñëpp encore une fois jërë ngeen jëf jërë